allo allo allo allo demal ñoo ngi ñoo ngi wax mbokku taalibe yi ñi bëgg siyaar ñëpp déglu leen ñoo ngi wax mbokku taalibe yi ñi bëgg a siyaar nañu dem ci kanamu jumaa ji muy góor ak jigéen ci kanamu jumaa ji la ñuy siyaare ñu def ay rang góor ñi féete boor jigéen ñi féete boor sëriñ bi dina génn foofu toog ci barabu siyaar bi bu ko defee ñu doyloo loolu bu ñu ñëwee ba ci wetam tàllal ko suñuy loxo mu ñaanal ñu ñuy avancé ba siyaar bi ba ba ñuy nodd tàkkusaan ñu julli tàkkusaan te mu bañ a am benn raj-raj ñoo ngi gërëm ñëpp di leen sant mbooloo mi na ñëpp dem ca kanam na ñëpp dem ca kanam jigéen ñi rang góor ñi rang na ñëpp dem ca kanam bu sëriñ bi yeggalee foofu la jëm si ñu dimbali ñu fii rek na ñëpp dem ci kanam na ñëpp dem ca kanam na ñëpp dem ca kanam jërëjëf Mbakke yàlla nga fi yàgg te wér jërëjëf Mbakke yàlla nga fi yàgg te wér na ñëpp dem ca kanam amin amin Mbakke amin amin Mbakke amin amin Mbakke amin amin baax na sëñ Moustapha waaw ah, sa xarit sa xarit toujours nga wax ko mi ngeen dal ñu may kilifa yi ñu jàll ñëw leen nii ñëw leen ministre ministre da nga am njëriñ dong moo tax yi kër kër yi. monsieur le ministre monsieur le ministre monsieur le ministre maa ngi dégg monsieur le ministre monsieur le ministre li ko jox kenn.